mbokki yi seen chaîne bii di Karama tv.com di chaîne bi jarigna ta du loré bo len faté abonné te bës kolos bi ngir man ak yeneen bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ñu bokkal yalla seen bokk Serigne Bara Kébé ganna ba ñu leen nuyo ziaru leen di ñaan yalla suñu kaddu fekk leen ci jamm fasiyene delu dellu siwaat ci seen Karama TV waxtane waat mbooleem li ngeen ñu xamé won doonte gën ngeen ñoo dégg ñu def ay vidéo nag ñu fas yéene waxtaane ci wàllu néew kàttan lan moo koy waral ak lan moo ci saafara si néew kàttan mu doon lu daj kàpp ci réew mi léegi boo xoolee bu njëkk mag ñi lañu ko doon gën a xamee waaye léegi ci ndaw ñi la léegi ñooy ëpp lu ñuy am jafe-jafe ci wàllu sëy muy tawat joo xam ne nag dafa bari yu koy jox nit ki ñu ñëw ci walu batin ñëw ci walu zahir mu ne ci walu zahir moy li nga xamne nit ki mën na koy jëfandikoo fekk mën na koo indil koor ci walu ñaka manal dara jabaram ci kaw bu fekke ne walu zahir bi bari na lol ño xamne ci seen alimentation li ñuy lek li ñuy jëfëndiko mo leen di indil jafé jafé ci walu sey am na xorom su bari dana indi jafe-jafe ci walu sey nit bu xorom bari ci yaramam dana indi mu am jafe-jafe ci katan pour sey nit itam bu sukar bari ci yaramam bu jabetee wala wala sukaram dem ba upp man na indi jafe-jafe ci walu sey waye du yam rek ci walu sey mais day def dem ba katanam manam kanamam ni mu waron degeure sax dootu ko dëgëree loolu beneen jafe-jafe la beneen jafe-jafe bi itam mooy boo amee hémorroïde bu chronique boo xam ne dafa dem ba dafa chronique ci yow mën na indi sa awra di dellu mën na indi itam jafe-jafe ci wàllu sëy beneen bi ci topp itam mooy di def masturbation am na sax scientifique yu ne day tax nit bi gën a am dëgër laa ci sëy waaye dëgg-dëgg dafay wàññi ngóora ndax day deyal sa sidit yi nga xamne mo nek ci sa awra ndax awra amul yàq bo xamne sidit la di def masturbation lu bari fay indi sa sidit yoy dootul deugal kon lolu bàyyi ko dafa gën lu upp nak ci jamono ji li indi jafé jafé ci walu sey moy li ñuy jëfandikoo bio yu bari xorom su bari si sukar su bari si stress itam dina indi jafé jafé ci walu sey même tension nit bu amee tension boo xam ne dafay wàcc wala dafay yéeg bu mu ci man a doon bu koy indil douleur rek maanaam méttitu bopp mën na koy indil jafe ci wàllu sëy bu fekkee ne nag ci wàllu baatin lu baree bari loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko boo eh, nit koo xam ne dafay am wat sikkinam ba mu set loolu dafay indi jafe-jafe ci wàllu sëy maanaam góor goo xam ne foo ko fekk sikkimam da koy wat ba mu set foo ko fekk moom day am jafe-jafe ci wàllu sëy ba ca topp itam euh, njaalo gu bari dafay indi jafe ci wàllu sëy nit su fekkee ne da ngay njaaloo njaalo gu bari da ngay dem ba jëmmi jamono dootoo mënate dara ci sa ci sa ci sa soxna waxoon naa ko sànq muy wàllu masturbation bi masturbation ba tey itam comme ni ma ko waxoon dafay indi jafe-jafe ci wàllu sëy benen bi ci topp itam moy li nga xamne dañ koy baxo di def bu njëkk sax mag ñi dañ ko daan dañ ko daan dañ ko daan kale manam bu na masaan may jabar jami laaj la euh, joxo la ñu tak la xala ngir ngir nga man leena jox seeni li nga xamne mom lañuy laaj wala itam lu ñuy wax takku dënn xale itam dana tax nit ki dana ka indil jafe-jafe ci walu sey légui nak nit ki nga xamne dafa am jafe-jafe ci walu sey ba pare lan la war a jëkk a def nit su fekkee ne da nga gis ne danga daan sëy sa soxna daan sëy trois minutes ba cinq minutes nga xëy xëy mënutoo sax une minute yu mat la nga war a njëkk a def mooy nga dem seeti docteur bu fekkee ne wàllu stress la am nañ ci ay garab yoo xam ne yàlla mën na laa dimbale boo ko toppee suñu borom mën na laa dimbale ba jafe-jafe ci wàllu sëy boobu nga xam ne stress moo ko sabab dana tax yow. waye lañ ci gëna a nit ñi moy ngay jëfandikoo gungun bu fekkee ni amo tension bi wacc bu fekkee ni amo tension bi wàcc booy jëfandikoo gungun jafé jafé ci walu say mëna la mëna la na laa bañ su fekkee ni stress moo indi euh benen bi top yi tam moy ñi nga xamné dañuy am tension manam tension bi yéeg wala bu wacc bu fekkee ne nga am tension bi yéeg nga xamné dem na ba indi la jafé jafé ci walu sëy li ngay def mooy dangay ngay di jëfandikoo nebedaay xobi nebedaay nga koy def infusion di ko naan dana lay dimbale ci tension bi nga xam ne dafay yéeg ba dana la dimbale muy mën a muy mën a mën am jàmm ci ci ci ci loolu. beneen bi ci itam ki nga xam ne itam tension dafay wàcc muy moytandiku li nga xam ne mooy ngun-ngun boobu ak naanaa ak ataaya tey jëfandikoo café lu bari kon café nekkee. am na ñoo xam ne dañu ko war a moytu am na ñoo xam ne itam dañu ko war di jëfandikoo kon ki nga xam ne tension dafay yéeg moom muy jëfandikoo muy bañ a jëfandikoo café moo gën ci moom ndax tension bi yéeg la yam te café dafay yéegal tension ki nga xam ne itam moom tension dafay wàcc muy jëfandikoo café moo moo moo euh, euh, gën ci moom ndax café dafay yéegal tension pour tension bañ di wàcc euh, beneen bi si topp mooy ki nga xam ne nag moom njaalo bu bari moo dem ba indil ko néew kàttan kooku moom la njëkk war a jiitu ci moom mooy mu tuub dellu ci boromam maanaam mu def ay istifaar tuub dellu ci boromam ndax feebar boo xam ne bakkaar moo ko sabab lay koy saafara tuub dellu ci yàlla rek moo koy saafara kon loolu lu mat a bàyyi xel la léegi bu fekkee nit ki nag daf koo judduwaale loolu dañuy wax ne bu fekkee ne sa waajur bu jigéen mi ngi dund tey te mi ngi nàmpal maanaam mi ngi mat a am doom ba léegi minu minu posé su boobaa mënees laa faj sa feebar boobu nga xam ne néew kàttan bi dafa judduwaale ku ñu ko wax yomb waaye bu fekkee ne sa waajur bu jigéen amatul doom nga xam ne dundatul wala moom amatul doom man bokk amoo ci xam-xam jàpp ma ne itam euh, faj ko dana yomb waaye li ci ëpp solo mooy nit ki nan lay mën a dundee ba mën a dund ci vie bu bu bu naturel dund ci ci bànneexam te du am benn jafe-jafe ci jafe yooyu li ci jiitu mooy muy xool li muy lekk ndax jafe-jafe yu ëpp yi nit ñi am ci seen feebar yi leen di dal mooy xool li ñuy lekk daf leen a jafe ndax ñu mën nañoo lekk waaye bëgg nañoo lekk waaye mënuñoo lekk mën a lekk nag mooy li ngay xool li gën ci sa wér gi yaram nga di ko lekk di moytundiku li nga xam ne baaxul ci sa wér gi yaram nga di ko moytu loolu mooy loolu mooy mën a lekk bëgg a lekk nag mooy loo jot rek te mu neex ci làmmiñ mën nga koo dugal sa kon loolu solution yi nga xam ne moom lañ ci am mooy suñu garab bii nga xam ne moom la ñuy wax karama lépp lu jëm ci wàllu ngóora ndax ku ñu xam suñu produit yépp karama la tudd am na ay karama frotté am na ay karama yeneen waaye karama bii ngeen di gis mooy jox ci wàllu muy garab nag bu am solo ci wàllu ngóora képp koo xam am nga ci jafe-jafe moo xam stress moo la ko teg moo xam itam da nga ci am jafe-jafe ci wàllu incha allah rabbi boy ñëwee dina la tek ci yoon ba yàlla mën na la ci defal jàmm su fekkee ne dafa doon lu yàgg ci gitu yow wala bu fekkee ne lu bees yow bokkut mi ngi koy jëlee am na ñoo xam ne traitement bi la ñuy jël am na ñoo xam ne nag bu fekkee ne lu bees la ci ñoom mën nañu bañ a jël traitement ba yàlla mën na leen dimbali kon lii mooy li nga xam ne moom la ñu indi woon ci waxtaan fas yéene leeral nit ñi ak dimbali nit ñi li nga xam ne mooy jàngoro yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy làmboo te mu leen di indil ay jafe-jafe seen mbokk Serigne fii ci seen seen télévision di Karama TV ngeen continuer di abonné ci chaîne YouTube bi ak ci euh, TikTok beeg yëpp ngir mën a jot yeneen vidéo ngir mën cee jariñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah seen chaîne bii di Karama TV point di chaîne bi jëriña te lore boo leen fàttee abonné te bës kolos bi ngir mën a jot yeneen i njariñ incha allah